te saxal ci sa kaw jàmm muy jàmm ak wér muy jàmm ak tal sa bopp muy jàmm xéewal wërsëg loo bëgg rek man ca dara ba lépp looy yëngatu rekk nga gis ke ndimbalal yàlla ci sa bopp moo xam ñi ca yëngatu ca yore jakartaaya di ay xalil yu góor ndeysaanam muy liggéey boo xam ne bu metti la koo ca gis ñaareel ma nga takkaab rajo topp wal fajri di ko wéttalikoo rawatina waxtaanu fajar yi xale yu góor yooya timit yore jakarta yal na yàlla dem ba soppi leen ko ay oto ñee ñu ci ambose yàlla nañ dem ba am seen weloy bopp welo yooya dem ba soppeeku ay oto ñee yëngatu ci wàllu oto tamit ci mbiram transport moo xam taxi yaag tata yaag njaay yaag car rapide ya ñoom ñooñu ñëpp yal na yàlla jox leen ay oto te musal leen ci ayu oto ci barkeeb sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama di leen dénk di dénk sama bopp borom jakarta ya rek nañuy teel a yeewoo fajar nañuy ànd ak njàpp sooy dawal ab jakarta te fekk yaa ngi takkoog njàpp ba nga ca toogee nga jàng fatiha ñetti inna ansalnaahu fii laylatil qadri tëjee ko salaatu ala nabi boo man yàlla dana la musal ci accident ci mbaaxam ña welo ya ña oto ya nañ koy wéttalikoo danañ góorlu tamit nag takkoo ak njàpp waxtu yi fu mu leen dabee rek jàkk ja leen gën a jege ñi dégg nodd ya nañ taxaw tëj seeni welo yi julli yow mi yore oto tamit fu la waxtu wi taxaw taxawalal nga julli ndax yow borom welo bi yow borom oto bi boo kërëwee taxaw boo gisee client taxaw waaw waxtu yàlla wi nag jot yàlla te nga ne duma taxaw su boobaa da nga dem ba taxaw foo bëggutoon a taxaw kon nag nañu góor góorgóorlu métier yooyu métier yu baax lañ bu ci kenn nekk di yàq sa bopp bu ca kenn nekk ba lu bon lu xew ci réew mi xel daj leen ca naan ay agresseur lañ di leen dëkkale mën naa am foo xam ne dëkkuñu fa waaye bu ñu leen fa dëkkee te fekk dëkku leen fa na ngeen fexe ba bu leen fa dëkk loolu mooy li am solo na ngeen ci góorlu ndax ñu ci bëri tey seen welo yooyu lañ yore seen kër yi ñu yore seen jabar yi ñu yore seen waajur yi kon maa ngi leen di laaj biir te leen taxoo njàpp te de leen léemu de leen fonk julli julli waxtu yàlla wi bu baax di sol colaay gu yiiw mooy lépp loo xam ne nii lu bon la Euh, loolu nag ci lay sofee rek euh, julli julli yooyu ma leen ñaax lislaam da koo bërile ndax boo gisee yonentu bi sallallahu alayhi ba mu defee isra woog mi'raaj dem ba gisee ak boromam juróom fukki julli la ko joxoon juróom fukki julli yooya nag borom xam-xam yi nee nañ yàlla wàññiwut ca dara juróom fukki julli yooyu rek da koo tasaarewaat ci biir julli yi moo tax julli yi lislaam am boo ko doon lim dana mat juróom fukki julli julli yooya bokk na ci nuyu jàkka képp koo xam ne ab jullit nga soo ñëwee ci jàkka fekk yaa ngi jàpp ci waxtu woo xam ne waxtu daga nag naafile la waaye waal bul toog lu dul ba julli nga ñaari rakka jàng ci fatiha ak saar woo mokkal baax na su fekkee waxtu wa waxtu euh, suba la jant bi soo gut ñaari rakkaaya boo ko julli na ko koy yeelu bu fekkee guddi nga fa dugg boo julli ñaari rakkaaya na nga ko biral kon tahiyatul masjid loolu lu baax a baax la ndax kat ku dem ci këru jàmbur nuyu borom kër ga ku dugg ci néegu jàmbur nuyu borom néeg yàlla nag këram ak néegam mooy jàkka yi luñ koy nuyoo foofa mooy julli ñaari rakkaa moo tax yonentu bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ida daxala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarkaa rakaatayni hatta yusalli rakaatayni soo ko fàttee ba toog nag faatagut jugal rek nga kabaar julli ñaari rakkaa ya su fekkee ne nag dafa nekk waxtu woo xam ne dañ fay tere ku fa naafila heure bi ngay ñëw gannaaw tàkkusaan la Malik tere na ku fa naafila heure ba nga fay dugg waxtu jant bi sola jullee guñ timis tere nañ ko fa naafila waxtu yi fay dugg gannaaw julleeg suba la tere nañ ko fa naafila waxtu yi nga fay dugg jamono jant bi fenk la xaraam na ko fa naafila gannaaw jant bi fenk na waaye yëkkati koo gut sib nañ ko fa naafila yii su boobaa Maam Alaaji Malik ci téere bu ñu tuddee aadaabul masjid mune ne yàlla bàyyiwul laak loxoy neen remplacé xal sa ñaari rakkaaya subhanallah walhamdulillah wa laa ilaha illallah akbar nga wax ko ñeenti yoon soo ko defee danga nga xam yoolab ku dawal ñaari rakkaa kon kooku ci julli la am na ci julli julli gu ñuy tuddee salaatul fajri ñaari rakkaayu fajar lu amaam doole la boo yeewoo bees salaatoo guñ naa fi laal lu la neex su ñu demee nag ba salaatu foofa lay waxtoom door di jotee su boobaa jullil ñaari rakkaa su la neexee nga dem ba ca jàkka ja jullee ko fa bu la neexee nga jullee ko sa kër jëm ca jàkka ja ñaari rakkaa ya ci mazhabu Malik fatiha rekk lañ cay jàng waaye boo ca dollee fatiha ak ñaari allam yi imaamu Ghazali wax na ci téere bu nga tuddee Ihya wa diin yàlla dana la musal ci pexeem noon dana la musal ci pexeem musiba yu bëri mooy fatiha alam nashrah beneen ba nga jàng fatiha ak alam tara ci ñaari rakkaay fajar yi mooy yi ngay julli door a julli ñaari rakkaay suba yi nekk farata yooyu ñaari rakkaa nag yu fajar ya buñ koy julli dañ koy yeelu duñ ko biral ñaari rakkaa yu am doole la dooleem moom kenn rek lañuy ñuy fay ci mboolem sunna yi bu la faatee ba julliwoo ko jant bi fenk mën nga koo fay ba ba ñuy jullee tusubaar foo ko fa jullee baax na yonent bi daana wax ne sallu rakaatay fajri walaw taradatkumul xaylu dee leen julli ñaar rakkay fajar donte da ngeen nekk ca guerre nekk ca armee ba di xeex tamit bu leen ko faat waxaan na ci beneen riwaaya ne rakaata fajri xayrun min addunia wa ma fiha ñaar rakkaay fajar moo gën àdduna ak lu ci biiram kon nañ ciy taxaw di ko góor góorgóorlu suñ mag ñeeg mën a jàngale yi dañ daan wax ne sax ñaari rakkaay fajar ku ko julliwut dee ni rek la yàlla may mu xëy julliwut ko te du dee waaye yooyu yëpp wane ne foor na rek nag mu ne picc moo gis mu xëy dee rek fa julli ñaari rakkaay fajar xaar moo gis mu xëy dee wala nag wala gëléem te julliwut ko rek dafa dafa dafa koo julliwut moo tax mu dee waaye yooyu yëpp nag nekkul ci téere yi waaye suñ mag ñi lépp luñ lay jàngal bëgg nga fonk ko dañ koy taqaleeg dee ndax dee moom kenn ñemewut ko moo tax ñuy wax loola rek kon ca julli ya la ñaar rakkaay fajar naka noonu witar ca julli ya la witar am na doole soo jullee tee ba sa julli jeex ci guddi gi jullil ñaari rakkaa nga tuddee ko safaa bu paree nga julli benn rakkaa moom kenn tuddee ko witar Cheikh na Tidiane dafa wax ne tusubaar boo ko jullee day toog xaar du héeg nga julli tàkkusaan moom kenn moo xam doole rek nga julli sëlmal rek mu yéeg ndax mooy salaatul wusta gi alquran ne inna xaafizu ala wa salaatil wusta nga julli timis mu toog xaar nga julli géem mu toog xaar boo witaree rek nag mooy tabaarakallaahu euh, laaf yi nga xam ne mooy yéegal ñeenti julli yi moo tax moom dafa recommandé ne witar nañ koy fay witar loo xam-xam doole la loo lekk-lekk ndigg ci la guddi waay boo jullee tee gee boo mënee defal fukki rakka nga indi safa ak witar muy fukk ak ñett yonent bi kan naa weeru koor ak duul weeru koor mosta passé loolu Aïcha moo ko wax Ibnu Abbas ne mosta passé juróom-ñetti rakka ak safa ak witar muy fukk ak benn ñaari hadis yëpp wér nañ boo ko bëggee dëppale ngay wax ne bu xatul rek mu def maanaam fukk ak benn euh, fukk ak safa ak witar bu xatee rek mu def juróom-ñett door indi safa ak witar kon googa julli am na doole muy salaatul witri xadis baa ngay wax ne inna allaha witrun yuhibul witra yàlla dafa wéet moo tax mu bëgg witar mu wéet mii di benn rakka soo ko jullee nag mooy laaf bi yëkkati sa jén sa ñeenti julli mooy yëkkati suba moo yëkkati tusubaar moo yëkkati maanaam timis moo yëkkati gexe tàkkusaan moom mooy salaatul wusta ba nga koy julli ba ngay ma rek la yëkkati boppam yeneen ya ca des nag da ngi xaar man nga koo xiyaas kat ci naa wane ne kat sunna yàgg naa yëkkati farata yaa ngi nii bi nga xooree sa koor gi nattoo muuram koor te man koo natt koor ga dañ koy xaj ci diggante asamaan ak suuf boo nattee muuram koor rek koor ga muuram koor mooma di sunna yëkkati ko moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne mu as-sawmu mu'allaqun bayna samaa'i wal ardi ila bi sa zakaatil fitri koor lu ñuy xaj la ci diggante asamaan ak suuf lu dul borom joxe muuram koor kon tamit julli yi dañ koy xaj diggante asamaan ak suuf lu dul borom julli witar kon euh, sunna yàgg naa nekk laaf yu muy héegalee farata koor gaa nga ne di farata asakaay muuram koor a ko héegal julli yaa ngi ne di farata waaye nag ku mii di sunna moo ko mujj héegal te maanaam witar sunna yëpp moo ci ëpp doole mooy sunna boo xam ne yonent bi dund na ba génn àdduna musut koo bàyyi benn bis sunatul sunanul mu akkadaat yëpp buñ ko doon lim witara ci ëpp doole bu ñuy lim as sunanul mu akkada yi bu ñuy njëkk a lim rek mooy witar kon ci julli yee la bokk waaye julli yooya bokk na ci li ñuy tuddee salaatul kusuufi shamsi jullig muurug jant bokk na ci jullig muurug weer bokk na ci jullig baaw naan bokk na ci jullig eh, maanaam ñu koy tuddee salaatul ishraq ñu gën koo xam ci Euh, julli yor-yor mooy fay nange bokkoon na ca julli ya salaatu taraweex mooy naafilay weeru koor bokk na ca julli ya salaatu zawal julli ineer bokkoon na ca julli ya diggante ak liqaam nga julli fa diggante nodd ak moromam nga julli fa mooy salaatu ma baynal adhanayni bokk na ca julli ya ak sujood ya sujoodu sukkuri waaye tamit ñi wax lépp xibaar nga sant yàlla sujood. ak sujootu jàngal quran di fukki barab benn yoo xam ne boo cay hegg boo jàngee ba hegg ca nga ànd ak njàpp waxtu dagan ak naafila la danga koo war a sujootal bokkoon na ca julli ya jullee wër kaaba ga bokk na ca julli ya jullee kaaba salaatul tawaaf am na mais salaatul kaabati am na salaatul durri am na julleeg lor da ngaa nekk ci xat-xat yàlla jeexal sa xat nga nekk ci yër-yër loola tamit am na julli dafa am lu la réer nga bëgg mu feeñ dañoo sàcc sa gétt ak nag gi wala sa doom a réer wala sa xaalis a réer sa xel di ñaaw fenn fu ki nekk nga war a julli julli guy feeñal loola réer yonent bi jàngale na ko julleeg ndimbal sa sa wërsëg dafa tëju nga nekk ci jafe-jafe loo yóotu doo ko jot loo yaakaar mu tas bunt boo dëgmal mu tëju am na julli koo xam ne boo ko defee dana tëj say mbir waaye tamit da ngaa bëri ay bakkaar ba mel ni man julli goo xam ne soo ko defee mu ñu koy tuddee salaatul istixfaar jéggalu yàlla say bakkaar am na waaye tamit salaatul tawba am na julleg tuub ñi dañ ko tuddee salaatul istixfaar ñi dañ ko tuddee salaatul tawba salaatu goo xam ne boo ko defee dafa lay may mujj gu rafet julli koo xam ne da nga koy def rek jublu ca ñaan yàlla mu may la mujj gu rafet am na ci julli yi julli goo xam ne dañ koy tuddee julleeg goreel sa bopp ci safara am na julleeg istixaar da ngaa bëgg a takk soxna baa nga bëgg a tukki bëgg a xam yoon waag na muy demee am na julli goo julli ñaan def listixaar julleeg tukki am na bala ngaa tukki nga julli julleeg ñib si ki tukki ma am na julleeg tamit tabaarakallaahu sant yàlla wala sujootam ba naka noonu tamit julleeg sàggan da ngaa sàggan sa mooy yàlla yi bëri topp yàlla jafe ci yow nga bëgg sàggan nga war la gannaaw julli ma am na yonentu jàngale na ko julleeg ay xemeem pour mën a jot ci xemeem teef yi nga bëgg am na julli tamit ngir takk soxna ngaa takk soxna ba pare bala ngeen a wéet am na julli goo war a julli ñaan door a ñaan nag doom joy ñëw julleeg gu lay protéger di la fegal mboole musiba yeeg nattu ya am na julli gu ñu julli nag gannaaw bi weeru barax lu amee fukki fan ak juróom am na julli gu ñu julli laylatul qadri julli see julli am na waaye tamit julli yooyu tamit salaatul xaajaat am na da nga am ay xaajo bëgg mu faju yonent bi jàngale nuñ koy jullee dem na sax ba jàngale julli salaatu tas tasaabiix mooy salaatu tasbiix rek sàbbaal yaa bëri moo tax ñu koy jamoo jamoo euh, taksiir muy salaatu tasaabiix ci siixatul muntahaal jumu'i bi kooku tamit am na waaye tamit salaatu xifsul quraan mos nañ koo wax ñu bëri di ko laaj danañ ko waxaat julli goo xam ne boo ko jullee bëgg a jàng dara mu jafe loo jàng fàtte ko mokkal dafa laaj jafe moo xam da ngaa bëgg a mokkal alquran wala ngaa bëgg a mokkal say leçon yi yooyu yëpp julleem tamit mu ngi fi waaye julli tamit am na julleegu wàññi julli koo xam ne au lieu que ñeenti rakkaa waaye yow da ngay far rek nga def ko julleeg ñaari rakkaa salaatul jami am na julli goo xam ngay boole du julli timis rek teg ca gee te fekk jotagut yegg seegut wala nga julli tusubaar rek. teg ca lu ñuy tuddee tàkkusaan ta fekk maanaam jotagut yooyu yëpp am na waaye salaatul jumaa te di jullig jumaa muy julli goo xam ne xeetu yonentu yàlla muhammad rek la ko yàlla jagleel waaye xeet ya ko jiitu woon amuñu woon jumaa googa julli tamit am na julli goo xam ne tamit tabaarakallaahu da nga fee nekkoon ak sa baay yàlla dogal mu génn àdduna mbaa sa yaay te amoo ngërmandeem nga dem dem nag ba sa buntab àdduna nag yaa ngi koy door a xam ndax ba paa biy dund xamoo woon dara ci àdduna yaa ngi nekkoon sa ndaw di ko doxal yàlla dogal sa baay dem daal te yóbbuwaale wut sa ngërëm naka nga koy dabaatalee yonent bi bàyyi na fi ak julli goo xam ne boo ko jullee ñaan ko su boobaa lépp lu la doxoon sa digganteek sa baay mbaa sa yaay mi génn àdduna te làqoo woon ngërmandeem da nga ko jot loolu dinaa la ko wax. salaatu tatawwaay am na julleeg coobareewu yaa toog rek di coobareewu julli ko dinaa la ko wax ak nuñ koy defee coobareewu guñ tënk am na coobareewu goo xam ne dañ koo tinki muy tatawwaul mutlaq am na ak mu qayyat yëpp dinaa la ko wax. julli tamit muy salaatu nafli julleeg naafila yoo xam ne day ñëw gannaaw julli maanaam farataya am na ci yoo xam ne dañuy jiitu farataya mooy farata yi ay gan lañ nga ne ah naa tertu gan ko am gan goo fonk da nga koo war a tertu boo ko tertoo ba mu ñëw nga dalal ko teral ko buy dem tamit nga gunge ko jullio yëpp naa la ko wax waaye salaatu taraweex naa la ko wax tulli naa fi laay weeru koor yi te kiwut ne nag bu weeru koor yi kase ñëw rek nañ ko xajji bu weeru koor a nañ ko xajati déeréet nag dañ cee war a sax rek naa la ko wax salaatul iidayni julleeg iid moo xam iidul fitri wala iidul adha muy julleeg korite ak julleeg tëbaskeeg nuñ koy defee yëpp dinaa la ko wax yëpp tey ci xeeti julli yi la tey yëpp sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama tabaarakallaahu moo ñu ko jàngal yooyu yëpp naa la ko farañ fànceel kon ci julli yi xam naa yi ma limal boo yoroon sa baaraam mbaa nga yor sa big di noté daanaka mat na juróom fukki julli la ca des nag mooy julli yooyu ma taxañal la moom laa fas yéene di la ko tàqartil par benn bu ma ci yegg ne la bii mooy julli sàngam julli gi lii lay jariñ julli gi nii lañ koy defee gëma la cay njëkk rek mooy salaatul xasri julleegu wàññi julleegu wàññi julli la goog sunnatun mu akkadatun la sunna solo soo xam ne dañ koo feddali loolu la imaamu Malik gëm imaamu Shaafi Abu Hanifa ñoom dañoo gis ne dagan na rek wàññi gën gis nañ ne ñoom ñaar moo gën matal ga waaye ala kulli haal ju léegi wàññi daal kadoob yàlla la kadoob yërmandeeb yàlla la bu may xeetu sayduna muhammad sallallahu alayhi waaw sa moromam nit moo fonk bu la mayoo kado nga jël buur bu day ni yàlla bu la mayoo kado doo ko jël moo tax Omar ibnul Xataab ba ko saxaaba ya laajee ne ko waaw ñun bu ñu nekkee cim tukki moo xam ne sonnuñu ndax mën nañoo wàññi wala comme sonnuñu mën nañoo julli julli nga matal ko rek Omar ne kadoob yàlla la sa morom moom nit bu la mayee nga jël buur bu day ni yàlla bu la mayee kado kon nga war a gën a mën a jël kon bu leen delloo kadoob yàlla bi nangeen ko jël julleeg wàññi nag charia moo ko yoonal alquran moo ko wax yàlla jàngal nañu julleeg wàññi ci alquran ah boo demee alquran na nga koy wax ci suratu nisaa yi suratu nisaa yàlla ngi wax ne wa ida darabtum fil ardi fa laysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in xiftumu an yaftinakum lazina kafaru yàlla nee na daal su ngeen nammee tukki su ngeen tukkee ci àll bi nekk cim tukki daal bàkkaar nekku te ngeen wàññi seen julli yi su ngeen ragalee xéeféer yi fitnaal leen ah, waloolu moo doon àll ba rek waaye doonte sax ragalatuñ maanaam euh, xéeféer yi fitnaal ñu tamit mën nañoo wàññi kon ragal ga duwatul ca sarta waaye dafa nekk rek ci daga nag wàññi julli waaye musaafir mu ne lañ koy la muy tukki bi matee distance ba naa la ko wax donte mi ngi ci sécurité ci alalam am sécurité ci ci ci ci bakkanam terewul mën naa wàññi julli kooku jëlee nañ ci hadis boo xam ne yàlla moo ko wax mu yàlla nu umaya moo ne man mii maa ñëw ci omar ne ko sax laysa ju junaahun ji yàlla wa an taqsuru min asalaati moom in xiftum ji moom lum ci wut si waaw kon nag bu ñu ragalee xéeféer la waxoon te léegi ragal tuñ bu ñu xóoloo nag omar ne man de xéemu naa ci lii nga xam ne moo lay xéemuloo man mii laaj naa yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama mu ne ma sarax la boo xam ne yàlla leen ko sarax waaye waaye na ngeen nangu saraxam ba xadis bi nii la tëddee fa an yaalam nu umaya qaala qultu li umar ibn alxataab laysa alaykum junahun an taqsuru min alsalati in xiftumu an yaftinakum alladina kafaru faqad amina annaasu fa qaala ajibtu mimma ajibta bi minhu fa saaltu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an dhalika fa qaala sadaqatun tasaddaqa allahu biha alaykum faqbalu sadaqatahu muslim yàlla bi mu ko laajee Omar ibnul Xataab ne ko comme yàlla dafa ne bu ñu ragalee xamuñ sécurité suñ alal mbaa ci suñ bakkan mën nañ wàññi julli léegi nag sécurité am na kon luy yoon wàññeeti Omar ne ko li la héem ba laaj ma ko man mi héemoon na ma ba ma laaj ko yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ma ko laajee yonent bi dafa ne rek sarax la bu leen yàlla jox waay waay na ngeen nangu saraxam ba moo tax Omar ku ko mos laaj laaj bi day wax ne cadeau yàlla la sa moromam nit bu la mayee jox kadoo nga jël kon buur bu day ni yàlla bu la joxee cadeau lii mooy masruiyatu bi aaya jii ma indi la moo ko tegtal boo ko jëlee ci sunna tamit yonent bi pratiqué na ko. yonent bi gis nga ko ba mu nekkee minan ca xajam ga xajatul widaa dafa doon wàññi jullee ko fa fekk wàññi na fa tusubaar wàññi na fa tàkkusaan wàññi na fa gee boo fa demee rek coono ba nga fay dund si nga xam ne dëgg dëgg lislaam diine ju xam-xam yërmandi la gis nga ko ba mu demee arafa pratiqué na ko wàññi na fa tusubaar ak tàkkusaan boole leen dafa julli tusubaar sëlmal ko ci ñaari rakkaa rek teg ca tàkkusaan julli ko ñaar rakka sëlmal kon boole na wàññi ak boole kon lii mooy hadis yi koy tegtale euh, waaye nag li ñuy wàññi du julli yëpp de tusubaar dañ ko wàññi jële ko ci ñeent andi ko ci ñaar tàkkusaan dañ ko wàññi jëlee ko ci ñeent ko ci ñaar gexe dañ ko wàññi jëlee ko ci ñaar jëlee ko ci ñeent andi ko ci ñaar léegi nag des na ñaari julli yu ma tudd suba tudduma ko tudduma timit timis kon nga yëggee ci ne suba kenn du ko wàññi ñaar rek la boo ci wàññi xatee day jeex di eh, timis timit kenn du ko wàññi ñetti rakkaa la kon moom dañ koy matal kon lii la fuqaaw yi indi julli yañ war a wàññi ak yañ warta wàññi mu des nag danga ma laaj ne ma waaw wax nga ma wàññi tegtalam ci alquran wax nga ma wax nga ma ko ci sunna wax nga ma julli ya ñuy wàññi waaw ndax ku tukki ku ne man ngaa wàññi ban distance lañ war a wàññee ma ne la waaw kay distance nag bi ñu war a wàññee muy masaafatul xasr yi fuqaaw yi dañ cee wuutee ah, ak diir bi ñu war a wàññi ku mel ni Abu Hanifa dafa gëm ne lii tax ñuy wàññi daal tukki ma lu mu néew néew na mat ñetti fan ñetti fan daal la imaamu Abu Hanifa gëm ci lañ war a wàññi. su ko defee nag euh, lii kon su boobaa nag euh, ci lii lañ war a wàññi euh, moom mu tegtaloo xadiisu xusaymatu bnu thabit mi nga xam ne yonentu bi daf caa wax ne al masu alal xuffayni lil musaafiri salaasata ayaam wa lil muqiimi yowmun wa layla axrajahu imaam ahmad wa abu daawuda dafa tegtaloo xadiisu xusaymatu dafa ne masaa ci sang daal su fekkee ngaa tukki ñetti fan la su fekkee da ngaa sax nag benn guddi lañ la may ak benn bëccëg ci moom nag ci la tegtaloo ne kon nag tukki daal bala ngaa sañ wàññi faw mu nekk ñetti fan loolu la imaam Abu Hanifa gëm waaye bu ko matul moom bu ko ëppee dara dara dootoo wàññeeti waaye buy ñetti fan jëm suuf moom danga mën a wàññi kon moom loolu la gëm boo jëlee Shaafi'i imaam Saafiyu ak imaamu Malik ak seen waa ngir ma mu ne nag distance bi ñu war a wàññee na fekk mu mat maanaam ñeenti burut bërit bu nekk nag boo ko jëlee ñeenti farsak la farsak bu nekk ñetti maayil la boo ko boolee mu nekk ñeen fukki maayil ak juróom-ñett ci la ngi door a wàññi maayil nag moo ëpp kilomètre boo koy jël ñeent fukki maayil ak juróom-ñett ci suñ kilomètres yi juróom-ñaar fukki kilomètres lay jox soixante-dix kilomètres daal ku ko tukki man ngaa wàññi mooy liggante Dakar ak Thiès ku tukki tukki mu mel noona fasoo yéene ci masabu Malik sax fa lu ëpp ñeenti fan fasoo yéene julli fa lu ëpp ñaar fukki julli mën ngaa wàññi ñetti julli ya ma la waxoon tusubaar tàkkusaan gexe buy ci masabu Abi soo tukkee lu mat. ju maanaam juróom-ñaar fukki kilomètre te fasoo yéene sax fa ñetti fan jëm kaw kon da nga wàññi bu matee ñetti fan jëm kaw dootoo wàññeeti buy maalik ñeenti fan la ndax mooy ñaar fukki julli rek foo war a julli ñaar fukki julli daal dootoo wàññeeti bu manqué ñaar fukki julli nag dangay wàññi kon wax naa la distance ba wax naa la tamit tabaarakallaahu fan ya wax naa la tamit léegi julli ya ñuy wàññi xanaa li ci des rek danga ma laaj nag ne ma fu ñu war a commencé wàññi place bi ñu war a commencé wàññi nit ñi seen dëkkuwaay yi ni ñu wuutee ni la tamit fi ñu war a commencé wàññi wuutee yow daal boo nekkee ci dëkk boo xam ne bu mag la dëkk bi nga nekk village la lu mel ni tey Ndakaaru lu mel ni Thiès lu mel ni Touba lu mel ni Mbakke. lu mel ni Kawlax xataa ba ci dëkk yi mel ni sax euh, maanaam yeneen dëkk yooyu nga xam ne tey dëkk yu mag la di dëkk njëndi baaxoowuñ bay su boobaa daal néeg ya mooy dëkk ba néeg ya ñuy askanee dëkk ba soo demee ba wan leen gannaaw benn néeg féeteetut la kanam benn néeg tolloo hoog moom ci sa ndeyjoor mbaa ci sa càmmooy rek sañ ngaa commencé wàññi. kon boo ne ma woon Ndakaaru mën naa laa wax ne daal boo demee ba passé Tëngéej Tëngéej daal boo ko wanee gannaaw gisatoo benn néeg bu la féetee ndeyjoor du mooy benn féeteewut la kanam yaa ngi tukki jëm Thiès mbaa nga tukki jëm Xombal mbaa nga tukki jëm jëm jëm Touba commencé wàññi sa julli yi tusubaar defal ñaar bu dafa fekkee julli ko ñaari rakka tàkkusaan noona booy matal tamit fi nga commencé woon a wàññi rek foofu ngay commencé xaatee matal boo ñëwaatee ba tëngéej rek commencé waatal matal nag su fekkee da nekk ci dëkk yoo xam ne dañuy bay tuddal ma tey dëkk yu mel ni Kër ma Madiabel tuddal yu mel ni Kayaar tuddal yu mel ni ay ngin ngi neew tuddal dëkk yooyu kon su boobaa boo demee ba paase tool yi dëkk ba tool yi ñuy askanee dëkk ba su boobaa rek mën ngaa commencé wàññi waxuma nag jamono ji nga xam ne tool dafa jafe danga gis koo xam ne dana bàyyi fukki kilomètre mbaa juróom-ñetti kilomètre mbaa ñeenti kilomètre di demi dëkk déedéet tool ya ñuy askanee dëkk ba mu nekk ca gannaaw euh, tool yi kër ga soo demee ba wan dëkk tool yooya gannaaw rek euh, su boobaa nag ala kulli haal donte yaa ngay seen dëkk ba sax waaye daal dem nga ba ca tool yi taatu kër gi moom jeexal nga ko rek su boobaa bu la fa tusubaar fekkee sañ nga koo wàññi tàkkusaan wàññil geexe wàññil boo demee nag ba ba ñib siwaat ba yegg siwaat foofa mën ngaa commencé waatee matal kon loolu mooy dëkk yi su fekkee ne dëkk ci suñ mbokki pël yi yore seen caawo yi fuñ dégg ñax am na rek ñi dem fa samp seen i xayma yi seen néegu ñax yooya yeew seen i gétt yi ku daal boo demee ba wan sa gétt googa nga yeew gannaaw rek mën ngaa commencé wàññi fekkee ne dëkk ci montagne la doj yi ci lañ dëkk soo demoon tey Italie fu eh, da nga ko gis ñoo xam ne ndeysaana fu mel ni lekkoo ñoom ca kaw montagne lañ dëkk koo xam ne nag tey sa dëkkwaay mooy montagne rek si kon boo wàccee montagne ba rek nag yow mën ngaa commencé wàññi waaye nag su ma la waxee Italie damaa bëgg wan montagne ba rek waaye yow moomu nekk Brescia bala nga woon a sañ wàññi demal ba woon Brescia gannaaw boo wàccee montagne ba doo wàññi ndax quartier la rek ci biir dëkk bi. ci dëkk bi la bokk kon da ngay dem ba wan dëkk ba gannaaw dëkk néeg yëpp féete la gannaaw ci ngay war a commencé wàññi waaye damaa bëgg a wax ne ku dëkk ci montagne foo foofa rek fa la dëkk ba xem ca montagne ba amul dëkk kër yu ko féetee gannaaw ak kanam moom foofa la dëkk bu wàccee montagne ba rek mën naa commencé wàññi kon wàññi waay yaa ngoog ci place yi wàññi waay yaa ngoog kon wax naa la ko distance bañ war a mën a wàññi ñeenti fan la ci Malik foo dul julli ñaar fukki julli rek sañ ngaa war a wàññi su matee ñaar fukki julli jëm kaw da ngay matal waaye nag fépp fuñ la waxee doo wàññi ndax tukki maa ko euh, mateewul wala fa ngay tukki na fekk bañ wax wàññi gi dëkk ba nga dëkk jëmoo fa sa dëkk bi nga dëkk kay foofu nga jëm dootoo wàññeeti. su fekkee dëkk ba dëkkoo fa waaye sa soxna ya fa la dëkk te mos ngaa wéet ak moom te foofa nga jëm sa deuxième ngero ngoro gi ah dootoo wàññeeti waaye sariya may na la nag sa yoonu tukki feek ba ngay xeggee julli gu la dab ci wan wi mën nga koo wàññi boo fi départ fii jël vol jëm Italie julli gu la dab ci wan wi ba ngay xeggee rek wàññi mbaa nga jël oto jëm Thiès ala kulli xaal te foofa nga dëkk julli gu la dab ci wan wi te xeggagoo wàññil booy ñib si julli gu la dab ci wan wi te xegsegoo mbaa nga am fa soxna te mos sa wéet ak moom julli gu la dab ci yoon wi hegg goo man ngaa wàññi waaye boo xasee hegg nag dootoo wàññeeti kon wàññi gàngoog ñii wàññi ñëpp nag buñ dajee damay wàññi dangay wàññi kenn mën naa liqaam kenn ka jiite bu ñu amee ñaar rakkaa sëlmal su fekkee mbooloo la moo xam ne nag ñii dañuy wàññi ñii di matal eh, su boobaa daal liñ gën a bëgg te mu gën a xoyaf nañ seet kuy wàññi mu jiite nekk ilimaan ja boo xamee ñaari rakkaa sëlmal julleem nga jeex mbooleem ñi nga xam ne dañ doon wàññi tamit sëlmal ke sëlmalam nga ña doon matal nag ju kenn ku nekk indil sa bopp ñaari rakkaa yi des kenn du roy ci kenn ku roy ci kenn rek sa julli nga yàqu na ndax roy nga ci ñaari ilimaan kon jullee ngoog buñ koy wàññeek buñ koy jiite ala ku leexal daal waaye nag su fekkee ne ki nga xam ne mooy matal moo jiite yow yaa ngi matal jiite ma taman damay wàññi dootuma wàññeeti yaa ma tënk ndax too wax ne innama ju'ila al imaamu li ma bi dañoo andi limaan pour ñu war koo roy te comme dama laa war a roy te da ngay matal dootuma wàññeeti kon nag moo tax daal musaafir bii jiite muqiim sib nañ ko si muqiim bii jiite musaafir sib nañ ko waaye liñ gën a sib nag mooy kuy matal julli dem di jiite kuy wàññi julli ndax soo kuy matal julli bu xasee jiite rek yow miy wàññi dootoo mën a wàññeeti tënk na la kon nag xatte euh, bangoog ci wàññi xatte bangoog ci fuñ koy defee xatte bangoog ci nuñ koy defee xatte bangoog su fekkee dañoo am ilimaan ju ñuy jiite te ñu ñëpp ñu bokk lu ñuy def du sensé su fekkee tamit ñun ñenn ñaa bokk la ñuy def waaye kiy wàññi moom moo jiite ba tey sensé wut ñay wàññi dañuy wàññi rek waaye kuy matal bu xasee jiite nag dootuñ mën a wàññeeti innama ju'ila al imaamu li yutamma bihi kon nag farañ fànceel naa la julleeg wàññi julleeg wàññi gii nag léegi-léeg léegi taggatémbe tax yéen ñii di ma déglu nekk Italie wala ngeen nekk Espagne wala ngeen nekk Amérique su ngeen ñëwoon tey ñu wax leen seen vol ngeen ñëw ci aéroport ba ñu enregistré leen vol ba tardé ngeen fanaan ci couloir ba ñu ne suba lay ñëw gannaaw suba lay ñëw lu ngeen fa yàgg yàgg yàgg yàgg dee leen wàññi seen julli ndax yéen fu mel nii kat seen vol dong ngeen di xaar su ngeen fa doon am fukki fan ñaar fukki fan tamit dootul leen matal dangeen ngeen di wàññi rek loolu moo dal yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee Makka def fatu Makka te def na fa fukki fan ak juróom-ñett di wàññi ndax booba déclaré nañ ko ne ko laa war naa dem pour war a war a xeexi ak ba nii hawaasin takk nañ seen ngànnaay di ko xaar. bët bu seen mu ne tay laay dem bët bu seet mu ne tay laay dem ba far def fa fukki fan ak juróom-ñett fukki fan ak juróom-ñett yooyu yëpp dafa far sax di wàññi kon nit daal bu tàggatémbee ci place nga xam ne fu mu nii la ka tàggatémbi bu tàggarti koo rek mu dem loolu dong moo ko fa téye waaye bu sottee tey mu fanaani bu sottee tey mu yendu ji mu toog di ko xaar su boobaa lu mu fa yàgg yàgg dafay wàññi du matal loolu moo dal suñ maam Alaaji Abdoulaye Ñas bu ko tubaab bi ñàkk déggook ma moom dem Gàmbi toog na fa ay xat xat ma la ñeenti xat la fa sax di wàññi bët bu set fay foo ne tey la mbir mi jeex rek ma ñibbi diiram ñeenti xat yam nekk Gàmbi yëpp dafa doon wàññi rek kon tàggatéem bi dana waral wàññi loolu nag boo ko doon misaal ci suñu jamono ji mooy tey ña ña ña nga xam ne dañoo dañoo dañoo tàggatéem bi tey ndeysaanam duggoon ci benn horaire horaire bi dem ba génn ndakaaru rek ndeysaanam nu dañu paane ñu na xaar leen ñu ngi dem wuti oto andil leen ko mu war leen a yóbbu kooka far fanaan fanaan naat ñi toog fa di xaar luñ fa yàgg-yàgg dañuy wàññi rek kon ña dëgg ñi jël avion tamit ñu wàcce leen ci aéroport wala ñu jugee ko seen dëkk ba jëm ci aéroport ba def seen enregistrement vol ba tardé ñi far sax faay fan loolu nag gën a gën a gën a gën a misaal ba mi ngi gën a feeñee ci waa Màkka gi Màkka gi ñaareel fii ngay enregistré dem ci aéroport dem nañ wal bi tànn ñaari fan ñett toogal foofa nga wàññi wala nga enregistré ca aéroportu Jidda ba toog fa del wàññi del wàññi loo fa yàgg-yàgg yëpp may nañ la ko kon daal jullee ngoo ak wàññi gi wax naa la ko kon muy salaatul xasri cadeau la bu ñu yàlla jox nañ ko jël di ko matal ni ñu ko yàlla joxalee te ñu sant yàlla mi nga xam ne moo ñu ko jox kon nag boo ma toppee suba ma dugg ak yow nag ci salaatul yi mooy boole julli ndax léeg-léeg nga tukki tusubaar fekk la ci aéroport ba nga war a jël vol bala ngaa yegg si jant bi so wa su boobaa charia may na la nga julli tusubaar ak tàkkusaan doora dugg ci avion bi mbaa yow mi may déglu nekk moodu moodu da ngay xëy wala sax yaa ngi fii di liggéey ci hôpitaux yi wala nga nekk ci yeneen place yi nga xam ne sa liggéey ba boo ci xasee sóobu te nga ko séq ak du la may ngay bàyyi dem di julli ji wala ah kay sa liggéey sax moo la ko mayut ndax li nga téye di ca liggéey boo ko bàyyi lu bëri yàqu ca te ba yow da ngay gontu ay trois heures ngay dem fekk tusubaar jot na wala ay une heure fekk tusubaar jot na te bala ngaa wàcc jant bi so kon danga mën a boole tusubaar ak takkusaan ca liggéey ba bu fekkee da ngay guddi da ngay monter guddi timit ah, bàyyi ko dem di julli ji jàppandiwut waaye daal timis jot na daal nga door a mën a monte kon jullit timis boo paree nga teg ca gee fa ngay nekk ca liggéey ba naa la ko wax ci jamoo taqdim jamoo taaxir ak jamoo suuriyaak la ci lislaam nangu ak fuqaayu lañ ci jàngale waaye suba ci waxtu wi lay doon incha allahu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.